même soigné le peuple dañu ko dajale ko tey kii bi la Abdoulaye nag yàlla gëjëbu ko sàmm nga. janvier hey Wally Ballago Seck ak Ramdan ce 18 janvier Thiès Kaay merci beaucoup Aïda Dieye À la place de France, ce 18 janvier, et eh, Wally Balago Seck Ramdan, ce 18 janvier, Thiès Kaay. waaw merci merci notre coordonnateur te Yacine Diagne rafet naa wul rafet naa wul jëjëf président Ablaye Dieye rek ngay gis mu ànd ceeg la grande coalition citoyenne ànd Siggil Thiès ak mu bees. ak maire bu engagement votre conviction votre détermination n'est plus à démontrer vous êtes une personne mature une personne qui s'est engagée des combats mais qui réussit des combats merci encore donc ñu ngi leen di remercier di wax ne mooy li am on a besoin d'un changement. un changement profond changement de comportement parce que ñi ñuy dénk war nañoo set parce que dëkk bii dëkk bu set la Thiès démb Thiès Ousmane Ngom Thiès Ibrahima Sarr donc je pense que ni tey dafa war a delloo foofu ndax si Ousmane Ngom dañu gën a yenn réalisation yu am solo yi fii ci Thiès donc nag ñun li ñu ñëw ay doomu Thiès la juddoo si dëkk bi dëkk si dëkk bi suñuy way jur juddoo fi dëkk fi ñu nekk fi di def lu baax di wax lu baax sañ ñu def naka suñu noonu sañ ñu wax ak askan bi lenn suba ñuy def leneen donc nag looloo tax ñu ne kat suñu dëkk bii duñ ko bàyyeeg ñoo xamante ni seetuñu ñoo xamante ni amuñu xel mu rafet ñoo xamante ni amuñu vision mais également ñoo xamante ni amuñu maturité je pense que sama frère. njaag bu fekke woon ñi naan Ablaye Dieye amul maturité je pense que ni dina taxaw ne leen Ablaye Dieye est parti de zéro jusqu'à être parmi les premiers capitaines d'industrie au port de Dakar je pense que rek day na expérience loolu rek day na maturité et il le sait bien je suis quelqu'un de très légaliste je ne dois rien au fixe de Dakar j'investis pour mon pays je participe pour le développement de mon pays daal ñun kenn li ñu yéene mooy ñu wax waa cité ouvrière ñu dem bokk na suñu bokk suñu priorité ci programme bi nga xamante ni moom lañu am ñu ngi leen sant baax di leen lañ doon xaar te egsi na ndax am na lu fi masoon a jaar am na lu fi masoon a jaar mais li fi masoon a jaar ak nam fa demee ak ñoom ñun tamit ñu raxas suñuy loxo toogaat xaar loxo yu set ñu toog di xaar am na bés boo xam ne ñëw xale yi ñëw nañ fii mais booba man tamit maa ngi toog sama biir kër génnu ma bis bii laa doon xaar tey te egsi na bis bii laa doon xaar te egsi na maag sama mbooloo mi te lay xamal tamit ni la ni ma yàlla joxe jigéen ñi noonu la ma yàlla joxe jeunesse bi macha allah. Cees nag dafa yàgg ci lëndëm ku nekk ñun ñëpp fi leen juddoo fi leen yaroo fi leen màggee on se connaît on connaît kii et Cees waay nag li ma di wax moo ñu ubbi seen bët. ubbi seen xel xam ni il est l'heure de changer notre ville te suñu suñu dëkk duñu ko changer di ko delloo ñu ko yoroon parce que ñu ko yoroon ku ne gis na li fi xew tabax sa kër dëkk ñu ñëw toj ko ñu ne la maire bee ko jaay diw ak diw ak diw te ñëpp xam nañ parti yi ñu bokk bu ñu bëggee loolu dakk fi nag Thiès retrouver son lustre temps parce que Thiès kenn mësul wax Sénégal te loxoom nekkul ca biir léegi nag Thiès mën nañ wax ne dafa dellu ginnaaw ci lu bëri loolu nag ñun doomu Thiès ñoo ko mën a changé li ko mën a changé nag mooy ñu indi ay doomu Thiès yoo xamante ni yaakaaruñu politique pour dund mais dañu ñëw pour dundal dëkk bi ci seen doole seen xel ak seen xalaat te loolu mënuñu ko def lu dul dégager ñii fi nekk indi fi une nouvelle génération muy Ablaye nga xam ni moom suñu suñu sunu grand la mais suñu génération la mën nañ ko wax suñu xalaat te dinañu déglu maa ngi leen di woo nag képp ku dellu sa kër nga wax ak say yaay wax ak say frère wax ak say dëkkandoo ñu leen Thiès dafa la changement te carte bu bees bi bu baax bi mooy bii bu ngeen duggee muy communal départemental liste yëpp ngeen jël bii Ablaye Dieye jiite ngeen voté ko. la ville de Thiès était très sombre avec des gens qui avec des gens qui ne sont que pour leur intérêt crypto-personnel, qu'ils ne cultivent que l'accumulation, l'enrichissement, la corruption, le banditisme organisé, l'ignorance absolue. Ablaï est venu. Ablaï est venu leur dire non, ça arrêter parce que le digne de Thiès. Je suis là pour éclairer la vision de Thiès avec ses 100 mesures. Merci Ablaï. Thiès a besoin d'Ablaye Thiès a besoin de ce changement wa kaana nabiyyan mutma'innan la yàlla wax ku bëgg baax da ànd ak ki baax ku bëgg changement da ànd ak un digne fils de Thiès vingt ans ñu nekk fi di jaay suuf si sonal waa Thiès Thiès am insécurité Thiès kenn xàmmeewul Thiès Ablaye est venu aujourd'hui